mboolem yéen a kaay ñu xëyandool ku ci xëyul leewu Sadio Mané xëy nga Sadio Mané mu leewu Ballon d'Or bi muy l'Observateur la Tribune Soleil National Enquête Le Quotidien Vox Populi Source A Les Échos L'As Record ak journal Stades ñoom ñëpp xëy nañu ci waxi Ballon d'Or africain 2019 Record yéen a kaay xëy jiitu paakami ci mbaram li mu bind fàng dajj ci xëta mu njëkk moo di Ballon d'Or africain 2019 Sadio Mané la Record nañu tey jii ci talaata ji juróom-ñaari fan ci weeru janvier ci la léppi leer ga ci Égypte fa la ñuy defee cérémonie waaye bu jàmm rek nekk day africain bi ci loxoy Sadio Mané lay tegee moom Sadio yegg na ci Égypte démb ba ñu teeru ko fa teeru bu rëy hôtel ba mu dal sax journal bi nee nañu am na fa barab boo xam ne moom la ñu ko tuddee stade yi ne kay nañu bësub sargal bi ci Sadio Mané tey la li nar a xew tey ci moom l'observateur talaatay sargal la ko tuddee soleil national ne ko bësub dëgg source waa jàppee ko bësub jaloore journal lise ko nañu ngoon gu nekk moom Sadio Mané la ci ngoon la yegg délégation bu ko waa Liverpool booleel ñoo ko gunge ci Égypte Le Quotidien na ñoo gonek gii di Sadio Mané jege ne loolu yëf yi yëf yeneen yu nekk ci yéen ñu xëyandool moo di mbiri gerte gi ubbi Le congo gi ñu fi defoon bu yàggul benn point de collecte boo xam ne ay Sinwaa ñoo ko yor ca Saalum journal bi nee nañu jëf joojee neexul njiit réew mi Macky moo ko waxal boppam nee na mi ngi ñaawlu agressé gi ñu fi agressé woon ay commerçant Sinwaa waaye ñaaw na bu nuppi loo xam ne environnementaliste yi nee nañu bu ñu ci jëlul ay matuwaay du jural askan wi jàmm juróomi téeméeri dëkk bi juróom-ñeenti ko ci bërigo denc ko fi barab am boo xam ne ay tonni tonn la jóge woon ci centrale à charbon bu Bargny bi looleet mi ngi ci dëkk bi set setal gi ñu bëgg ci dëkk bi ba seet tàmbali ko keroog samedi sociologue bii di Jibi Jaxate nee nañu ci Vox Populi li muy ragal moo di projet bi doon lu gàtt fan ndax liggéey ba ci waroon a am laata ñu koy sóobu defuñu ko ci communication bi doyul boole ceekit ñi koy def waxtaan ñu askan wi ba askan ànd ceeg ñoom leneen lu ko jaaxal moom sociologue bi moo di nee nan la mën a nekkee ci réew mi mel ne Sénégal am projet bu ne toll tuddewuñu ko nenn lu dul cleaning day làkk du wolof du joolaa du séeréer du sax làkku réew mi ak tolluwaayam ci wàllu koom di situation financière bi l'observateur xëy na ci di càmban 2020 Maysa Ba bu dib économiste ne ni état bi doxalee ci plan Sénégal émergent bi bu ko wàccul gi mooy yées am na yeneen i kàngam yuy gëstu ci wàllu koom yu xamal waa l'observateur ne état bi moo amatul xaalis trésor public moo gën a sonn ñëpp jamono ji borom réew mi di Macky la Sénégal bind na ne mi ngi gëstu àndandooy démbam yi militant première heure yu APR yi la invité woon keroog ci ab añu waaye yaram yu bari daw nañu ca ndaje ma Djibril Waar ak Abou Abel Thiam ñoo nga fa woon Moustapha Cissé Lo ak Moustapha Diakhaté la ñu fa gisul woon donte seeni tur safoon na sàpp ca ndajama nañu daje ji ci enquête dina kaay xooli fa doomu Sénégal bu jigéen bii di Ndeye Soxna Sané ak coono bu rëy ba mu dund ca réewum Tunisie ubbil journal bi ndey Soxna Sané nee na waa enquête dina kaay ci aéroportu Tunisie la ñu ko jàppee juróomi nit téye ko dóor ko ba muy bëgg a dee mbogo mbogo ko dàq ko génn ko réewum Tunisie dellu si ko Sénégal